barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mu jël faydu jox ñu ñuy kooku mooy dëgg bi dëkk ci suñu diine. loolu ba ñëw tuub ko. tuub nag. tuub nag moom. yàlla ko may xeet yi. yàlla ko may xeet yi. dimbale leen ko. dimbale leen ko. ñu xamee ne ñu néew doole lañu. ñu xamee ne ñu néew doole. tuub. tuub. day wax ne kenn mënu ko jëf ci jamono bi may. day wax ne kenn mënu ko jëf ci jamono bi may. tuub rek mën a jëf ci jamono bi may. tuub rek moo mën a jëf ci jamono bi may. lu jaam di defoon ci lu jaam di defoon ci lu bon xam rek jox ñu ñuy naan suuf moo di lan suuf moo di lan mooy génn ci lépp lu ŋàññ ñelloo lépp luñ tal mooy nga ci lépp lu ŋàññ lépp luñ tal suuf mooy dëgg ci suñu diine mooy dëgg bi da ngeen dégg bu baax suñu diine du wax rek ci langu. da ngeen dégg bu baax suñu diine du wax rek ci langu. mu génnee ci bépp dëkk bu ñaañee. boo génnee ci bépp dëkk bu ñaañee. bépp jëf bu ñaañee bépp wax bu ñaañee. bépp jëf bu ñaañee ak bépp wax bu ñaañee. na la bépp jikko ñuy sant. na la bépp jikko ñuy sant. ak bépp jëf ñuy sant. ak bépp jëf ñuy sant. ak bépp wax ñuy sant. ak bépp wax ñuy sant. ba tuub la. ba ñëw tuub la. yàllaa ko may xeet wi. ko may xeet wi. dimbale leen ko. dimbale leen ko. ñu xamee ne ñu néew doole lañu. ñu xamee ne ñu néew doole lañu. tuub. wax ne kenn mën nga jëf ci jamono bi wéy. day wax ne kenn mën nga jëf ci jamono bi wéy. tuub rek mën a jëf ci jamono bi rek ci jamono bi ci ci പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചേർപ്പാണ് ഏവർക്കും ഉണ്ടായി ജമയാണ് ഈ വരുന്നതിനോട് കുക്കറിയാതെ രക്തം ചിരിക്കുകയാണ്